salaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñoo taamu rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 di ko déglu saa su nekk ku nekk nuyu nañ la sa ak sa sant di beral nuyu ak ziar ñi nga xamante ni saa su nekk ñuy ànd ak ñun ci émission bi di toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures tey seen émission sociale toute la ville en parle euh, fas yéene wax euh, thème boo waxtaane thème boo xamante ni mu occupé euh, actualité bi depuis quelque temps prévention de immigration clandestine ngeen gis ni temps yëpp euh, ñu baree bari ci ndaw yi ñu ngi daal di jëlaat gaal yi euh, ngir daal di dugg foofulee ci Europe am na ci ñu bari ñoo xamante ni ñu ngi intercepté seeni gaal am na si ñoo xamante ni ñu ngi faatu ci biir géej gi ñu daal di euh, am bëgg taxaw xool lu ne mel lan moo ko waxal exactement lan la mën a jur mais tamit ban solution lañ ci mën a apporter ngir waxtaan ci mbir moomule moo waral tey ji ñu dalal Adama Mbengue Adama Mbengue mooy jiitu euh, action pour les droits humains la l'amitié nekk kuréel goo xamante ni dañuy yëngatoo ci wàllum àq ak yelleefu euh, doomu aadama mais tamit di wax ci lépp lu soxal wàllum immigration euh, wala immigration en tout cas Adama Mbengue ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waa ñu ngi lay fay soxna si Mboro di rafetlu invitation bi. Mm. Euh, d'abord di nuyu tamit di jël suñu nuyu di ko teg sa loxo pour nga jottali ko kilifa kër bi Euh, muy euh, groupe bi yëpp ah. muy que ça soit rajo bi ak euh, presse écrite bi nuyu tamit auditeurs yi nga xamante ni ñun ñoo ñuy déglu à travers seen rajo ak ñu nga xamante ñoo ñu suivre peut-être à travers le smartphone muy Facebook wala ci seen site internet. Mm-hmm. voilà tey jii ñu lay laaj ci kuréel gi nga xamante ni jiite nga ko di action pour les droits humains et et l'amitié kuréel gi bi ngeen ko sosee lan moo ko tax a jóg exactement. waaw dafa laal lépp lu soxal àq ak yelleefu doomu aadama wala da ngeen am spécialité. waaw euh, action pour les droits humains et l'amitié euh, ñooñ ko sos si 2007. Mhm. dafa amoon trois bureaux la. Mhm. maanaam ñun ñooñu ñëw en 2018 mooy troisième bureau bi. Mhm. bureau bu njëkk bi nag booñ ko doon sos ay ndaw ñoo ko sos. te euh, période 2007 2006 bi rek si la ñu signé charte africaine de la jeunesse. nga xamante ni charte boobu noonu lu muy wax moom mooy lépp lu tënk si ak ak yeleefu ndaw yi. Mhm. si Sénégal période boobu moo ñu ko signé woon en 2006. Mhm. 2007 mhm. nag ndaw yooyu noonu nekkoon fii nekku rek ay sénégalais ñoom ñoo ñëw toog ne a ah, il faut ñu ñëw défendre droit wu ndaw yi te ñu ko mën a gën a défendre ñoom ay ndaw la ñu war a doon te charte boobu noonu pour rappeler. dafa naan ndaw mooy ku nga xamante ne dafay am âge de trente de quinze à trente cinq ans. boo weesoo trente cinq rek nekkatoo ndaw. te ñoom ñooy dund même réalité te kuy dund réalité bi nag moom moo gën a mun a yeyoo pour mun a défendre ak ak yelleefam léegi ñooy ndaw yooyu noonu ñoom ñoo ko créé woon. Mhm. maintenant euh, organisme bu nekk nag dafa am ay chartam mhm. munoo wax lépp loolu moo tax de manière spécifique ñoom ñu ñëw commencé di wax ci droit des jeunes de manière générale mais de manière spécifique. Mhm. wax ci migration flux migratoire mixte bi yëpp. muy réfugié muy demandeur d'asile muy question mobilité de manière générale. apatride muy euh, lu ñuy woowee tubaab bi di woowee te ñun d'accord ñu si loolu muy migrant économique. Mm-hmm. mooy ñu nga xamante ne migrant économique maanaam. Euh, boo dee xool ñu nga xamante ñooy jël gaal gi. Mm-hmm. te nekk ay dëkk yu nga xamante ni dëkk yooyu noonu amul guerre amul dara lu nga xamante ni dañu leen kii sonale wala dañ leen persécuté. Mm-hmm. ñooy dañ leen jàppe migrant économique. comme actuellement xale yi lañu ñuy effectivement effectivement boo xoolee tamit si pacte mondial. Euh, ñaari pacte yi muy global compact si migration ak bu réfugié mhm. tubaab yi pour lu leen arranger moo tax ñu ñëw def différence boobu noonu si ñaari termes yooyu noonu alors que bu ñuy wax problème mobilité lépp la tënk mhm. donc loolu moo tax bon de manière euh, spécifique ñu ñëw depuis 2007 ba léegi nii ñuy wax ci problème yooyu noonu mhm. beneen bi nag mooy lu nga xamante ni dafay doon ay facteurs yu lié ci migration. Mhm. dañ ciy wax tamit muy violence moo tax chaque fois bu amee problème yooyu noonu. Mhm. ñun dañ ciy génn. Mhm. loolu nag loolu la premier biro bi def. deuxième biro bi def ko ñun troisième bureau boo ñu ñëwee tamit ñu continuer si loolu. xam nga euh, juste benn parenthèse même si nekkul laaj bi. xam nga boo nekk si benn kuréel. Euh, di wax tout le temps nga ne société civile la ngay wax tout le temps les politiques. pour ñu respecter di def deux mandats. Mm-hmm. bu ñu ñëw violer yenn charte yi. te yow nga yàgg ci organisme boobu noonu nekk fa ay dix ans wala quinze ans yow est-ce que foofu noonu tuyee euh, de manière légale wala euh, war nañ la mën a déglu. Mm-hmm. ndaxte da nga gis ay kuréel yu nga xamante ne da nga gis kenn moo fay nekk pendant dix ans wala dépassé ko chaque fois mu toog bu toogee tele wala rajo ne ces hommes politiques là nañu ñëw respecté diéeg diéeg la mm-hmm. donc de manière daal. Euh, mais mais mais yéen comme waa ADHA. da mhm. ngeen a spécialisé wu maanaam comme par exemple sénégalais bi nekk bitim réew. sénégalais maanaam ki jógee Sénégal dem euh, Asie mhm. wala dem Amérique wala dem Europe wala dem Océanie. wala euh, migrants yëpp ngeen di kaasal wala sénégalais yi nga xamante ni jóge nañ Sénégal dem bitim réew. waaw xam nga euh, moom laa doon wax focus ci sénégalais wala eh. da ngeen def focus ci képp koo xamante ne rek jóge nga si réew dem si beneen réew daane sa doole wala. quelque effectivement loolu laa lay tontu. Hmm. xam nga euh, pour ñëwaat rappeler. Mm, mm. boo ñu ko doon créer c'est pas des sénégalais uniquement ñoom ñoo créer ADA. Mm. y avait des étudiants yi nga xamante ni Paris 7 lañ nekkoon ñi Paris 11 ñeneen ñi nekk Université Michigan yu fi nekkoon. nekkoon ci beneen kuréel boo xam dañ fi ñëwoon juste. pour def seen stage. ñoom boo ñu ñëwee rencontrer avec yeneen ndaw. ñu ne dañuy créer ADA. donc ce serait mal vu ñu ne dañuy défendre ak ak yelleef uniquement des sénégalais. te bu ñuy wax migration bi moo tax. le terme émigré ak immigré am sens. Mhm. donc c'est pas seulement les sénégalais. Mhm. dañuy wax tamit si yeneen nationalité yu nekk fii. yu nekk fii. Kédougou lu fa xew effectivement Kédougou Kédougou lu fa xew. Mhm. Euh, lu mu am plus de dix-huit nationalités dañ si wax. premier bureau bi ñoom boo ñu doon wax si affaire u Soudan. boo ñu doon wax si yeneen problème c'est vrai que euh, lépp loo xamante ni affaire u réfugié la dafa nekk loo xamante ni c'est un peu complexe. moo tax loolu duñ ko fësal xam nga koo xam dañ ko persécuté mu jugee dëkkam ñëw fii ni jugee par exemple je peux donner des exemples parce que bu ñu waxee plus de quatorze mille réfugiés yu fi nekk ak plus de trois mille demandeurs d'asile ñu si gën a bëri c'est des Mauritaniens mm. avant bëri woon na ay Gambiens mais boo mu demee ba stable si la Gambien delluwaat seen dëkk mais Gambien yu bëri dañoo doon ñëw si suñu siège bu nekkoon bopp. Mhm. ñi demoon ñëw di leen yóbbu si commission national de euh, commission national bi bu nga xamante ne daal moom mooy saytu lii di euh, statut wu réfugié. Mhm. ànd ak ñoom foofu. Mhm. ànd ak ñoom tamit si yeneen instance di leen accompagner mais ñooñu doo leen fësal. c'est vrai mais mais souvent duma leen dégg ngeen wax euh, comme yéen waa ADHA. wax si problème mu réfugiés euh, yu nekk fii Sénégal surtout les réfugiés mauritaniens ak jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy jànkonte dafa mel ni ñoom dañoo dañoo wéet ci xeex bi ñi leen di xeexal bariwul. pourtant ah, boo boo est-ce que yéen fës ngeen. Mhm. vraiment ci xeexal les réfugiés mauritaniens xam nga moom laa wax. Mhm. c'est-à-dire nekkul liggéey bu nga xamante ni da nga koy fësal. Mhm. pour d'abord protéger la personne bu nga xamante ni. bon réfugiés de manière générale ils n'ont pas beaucoup de soucis. contrairement aux demandeurs d'asile demandeur d'asile. moom mooy non mais les réfugiés mauritaniens moom dañuy souffrir dinaa dinaa la si leeral. Mhm. xam nga tey boo nekkee réfugié. Mhm. am nga nga xamante ni wala kuréel yu nga xamante ñoom ñoo lay protéger. Mhm. muy d'abord dëkk bu nga xamante moom moo lay aar n'est-ce pas ndaxte am nga papier wu réfugié. c'est vrai que am nañ yenn problème parce que seen papier yu ñuy jot c'est juste des feuilles nii ah, yi nga xamante ni si yenn direction publique comme privée yenn ñi duñ ko reconnaître loolu moo tax euh, sortie bu ñu mujjee def muy journée internationale. des réfugiés ñu waxoon ni projet de loi bu nga xamante ni moom moo obsolète il faut ñu ñëw xoolaat ko ndaxte si tiroiru assemblée amoon na benn euh, plaidoyer bu ñu defoon ak yeneen organisme cinq la ñëwoon mais tiroir yooyu noonu mooy si ba assemblée ba léegi nii. Mm. loolu kaasan nañ leen ko. parce que ñoom neen dañoo am problème mu euh, am papier te su fekkee da nga am problème mu am papier. Mm-hmm. pratiquement pour nga liggéey c' est un problème pour sa doom jàng c' est un problème. Mm-hmm. Euh, pour seen doom am insertion professionnelle c'est un problème mm. surtout le cas des réfugiés mauritaniens même socialement de financièrement il souffrent voilà ah. est-ce que est-ce que ADHA moom warul porter ce combat. moom laa la wax nii. waaw carrément mu euh, fës. pourtant combat boobu bon. Mm. je pense que euh, même seen quotidien. reprend jàppale ñoom Aljuma Sissoko et tout. Aljuma je le connais très mm. bien. Mm. Euh, pourtant journal sax reprendre na ko journée internationale des réfugiés. Mm. loolu yàgg nañ porté combat boobu noonu depuis benn projet la mu nga xamante ni ça date de 2012 du léegi mhm. xool nañ ko càmbar nañ ko nguur gi xool nañ ko càmbar ngeen càmbar nañ ko ba gis ni que projet bii nii de loi bii nii lu am njëriñ la lu am solo la mhm. maintenant ñoom bu ñuy wax ni que c'est des question purement euh, géostratégiques surtout géopolitiques dinañ leen comprendre ci benn anam mais chaque fois ñoo ñu ñëw tàppe si table bi fu ñu war a tàppe ñoo ngi koy tàppe wax nañ fu ñu war a waxee bon ñu ngi continuer baissé wuñu les bra pour ñëwaat si lu ma waxoon sànq. Mm-hmm. boo ñëwee si demandeur d'asile ak réfugié am na différence. demande le réfugié am na benn assistance bu nga xamante ni commencé na ko am. Mm-hmm. par rapport ak HCR. Mm-hmm. par rapport ak accompagnement bu ñu leen accompagner. contrairement au au au demandeur d'asile da nga doon dem université. étudiants yi bu ñu lekkee ba pare. Mhm. nga dem doxantu foofu. Mhm. xaw ma ndax ba léegi moo ñu am ou pas mais mhm. avant amoon noonu ak Covid bi nii ak nu ñuy ñëwee di euh, saytu entre wu UCAD et tout moom moo tax peut-être mu war a wàññeeku mais avant boo fa demoon reste bu étudiants yi doon desal foofu noonu foofu la demandeur d'asile yi demoon dem pour jël reste yooyu pour mun si lekk. dangay dem si riu dakaar fii nii xam nga fii nii bon Sénégal ñoo ñu wax pays teranga la. te dëgg la. boo rombee benn nit di nga foog ni ah kii nii peut-être benn citoyen la rek buy yalwaan wala bu toog mm. alors que c'est des réfugiés wala c'est des demandeurs d'asile yu nga xamante ne amuñu benn assistance si mbedd bi la ñuy toog. Mm. foofu noonu defoon nañ benn plaidoyer bu nga xamante ne ah demee comparer dëkk yi nii muy euh, Togo. Mm-hmm. muy tamit Ouganda nga xamante ne ñoom du ñu dépasser période six mois pour ñu ñëw wax la statut wax la ndax ah nangu nañ sa demande bu nga def ou pas mais fii nii da ngay toog benn période bu gudd. période boobu noonu dina dem ba trois ans. Mhm. mais trois ans yooyu bu nekkee amoo benn assistance amoo dara fu ngay jëlee xaalis pour dund ak yooyu mais après nan ngay mujjee. Mhm. ñu si bëri dañuy mujj a ñëw euh, lu ñu waxee tubaab li ñuy wax nekk euh, un un demande d'asile mujj tu tu deviens un un migrant. Mhm. migration ngay def clandestine ngay def. soit dangay jël yoonu. agades bi. wala nga jël yoonu Libye bi wala boo déggee benn bato am na nga dem fa. nga dem fa léegi ñooy noonu ils sont à la base lu ñuy doon moom mooy c'est des personnes qui sont persécutées mais lu ñuy mujjee moom mooy jéem a doon migrant économique entre guillemets même si bugguma bugguma terme boobu utiliser terme boobu mais lu ma jaaxal mooy Sénégal bëri na ay kuréel yu yëngatu ci wàllum droits humains mhm. euh, bëri na ay spécialité man gisuma kuréelu euh, droits humains boo xamante ni dafay def focus carrément ci li nga xamante ni euh, moom mooy droit à la santé je pense que euh, ça pose problème bu nit ñi di euh, coow négligence bi am ci hôpitaux yi mhm. euh, ku feebar mu noo faju difficulté yi nga xamante ne nit yi am nañ ko fii mhm. au Sénégal pour feebar faju wala au niveau de la santé la santé coûte cher man gisuma benn droit de l'hommiste bu kaasal ñooñu loolu loo mën a wax bon te yaakaar naa ni droit à la santé effectivement bokk na si droits humains yu gën a fondamentaux buñ ko doon lim buñ ko jiitalul premier war na nekk deuxième position je pense euh, bokk na sax ci objectif de développement durable bu Nations Unies mhm. bokk na tamit ci rencontre bu nga xamante ni euh, délai bu nga xamante ni waa Union africaine teg nañ ko pour sukkali Afrique parce que tey jii nii quoi qu'on puisse dire éducation santé dafa nekk lu nga xamante ni euh, moom moo war a nekk ci ci ci kaw lépp mhm. tey boo amul wér-gi-yaram loolu man mi di wax ah, yow xam naa ko di wax effectivement voilà. Mhm. donc euh, boo amul santé moom mhm. lu bëri doo ko mun mhm. da ngay wàññeeku trop te ah xëy na ñu mun a gën a taxaw pour mun a kaas si loolu wala pour mun a wax si loolu moom mooy ñu nga xamante ne ñoom ñooy liggéey si domaine boobu ci domaine mooy santé xam nga tey boo bëggee wax dara il faut nga maîtriser ko d'abord nga dund ko d'abord te ñoom ñoo war a gën a mun a nekk pour wax si loolu. am na ñeneen ngeen wax am na ñeneen. droit feebar faju effectivement mais am na nga am wala nga ñàkk ça c'est un c'est un droit humain. effectivement fondamental. non je je lu mais le fait que man paradoxe bu ma gis mooy mm-hmm. gisuma benn kuréel alors que fii am na kuréelu droit de l'homme yu bari mm-hmm. mais amul benn pratiquement kuréel en tout cas man xawma ci kuréel bu spécialisé wu carrément comme yéen ni ngeen spécialisé wu focus ci affaire euh, migration nga gis ñoo xamante ni pratiquement lépp lu laal ci wàllum politique dañuy jóg taxaw wax mais suñuy wax ci jafe-jafe euh, euh, paj meeg hôpitaux yi même ñoo xamante dañu war a kaasal les de la santé ay droits de l'homme yoo ko xam ni tey war nañu jóg sax kaasal les médecins euh, kaas seen plateau médical bi défectué ainsi de suite mais lu tax loolu amul bon pour pourtant man am naa benn kuréel bu ma xam boo mm-hmm. xamante ñooñu wax si ñu am dérépano mm-hmm. te ñooñu moom soxla na ne assistance bu bu bu yaatu mm-hmm. c'est vrai que euh, comme nu ma ko njëkkee wax ñun on a choisi de pas être généraliste xam nga tey ku nga xamante ni il parle d'ordre général tey euh, lu bëri. Mhm. par rapport ak nga xamante ni dafa spécifique kooku mooy gën a pointu. Mhm. moom mooy gën a mun a xuus si wax bi wax loo xamante ni il maîtrise ça. Mhm. maintenant ah xanaa. gën a wax suñu suñu yeneen naataango yi. nga xamante waaw pour ñu ñëw wax si si santé. te am na wàll bu am solo. boo xam mën nañ ci wax. tout à fait en tout cas c'est c'est fondamental euh, tey jii euh, ñu lay laaj. Euh, ci question d'actualité bi loo xamante ni yaakaaroon nañ ni Sénégal weesu na ko Euh, foogoon nañ sa dépassé nañ ko parce que sensibiliser nañ ndaw yi ba sonn yaa dix ans je pense 2006 affaire yooyu mm. Barça wala Barça amoon na fi doole euh, mais dañu gis ni en 2020 euh, actuellement ñuy laaj sax qu'est-ce qui se léegi chaque jour ñu jàpp benn euh, euh, gaal wala looco euh, boo xamante ni ay jeunes ay ndaw ay sénégalais ñoo ci dugg pour dem Europe barsa wala Barsaq maanaam tekki mbaa dee damay jaar si gaal gi voilà comme que man mënuma am visa wala awma moyen pour am visa ainsi de suite wala visa bi condition yi ñu teg c'est impossible pour man ma am ko te gis nañ ni politique européenne bi nga xamante ni teg nañ ko am visa léegi dafay gën di gën di mm-hmm. jafe mm-hmm. ban jàngat nga am déjà ci li nga xamante ni phénomène bu ñu weesu woon la mu jékki-jékki rek ñëwaat pour yow exactement lan moo ko waral. waaw phénomène bi bon c'est vrai que bëggoon naa ñëw <laughs> tuuti rappel historique. mais mmh. temps bi moo ñu ko dul may. Mm-hmm. pour rappeler ni que ñun si lu ñu jàpp moom mooy mm. quatre phases la la ñu am bu migration. Mmh. maintenant euh, bettu ñu ñun. Mm-hmm. migration nu mu amee. li am nii waaw te ku ñu suivre. Mm-hmm. war na xamante ni alerte nañ depuis. on avait fait boo dee xool suñu communiqué en deux mille dix huit trente yu ñuy def yëpp. Mm-hmm. vingt huit yi wala vingt yi si migration la pour alerter. Mm-hmm. yamuñu rek si communiqué. Mm-hmm. demoon nañ dem si ay gox goxaat def région yu bëri. avec nos propres moyens. parce que dañoo wax ni avant ngay def dara bul séntu. yéen ku leen di financer yéen waa ADHA. waaw xam nga. fu ngeen jëlee ay koppar yu ngeen defee ay tour xam nga hmm. euh, ñun suñu politique surtout suñu troisième bureau moom mooy ku nekk. Hmm. si biir ADHA da ngay ñëw autonome c'est-à-dire da ngay am sa liggéeyu bopp. Hmm. boo amee sa liggéeyu bopp ba pare. nga def benn don de soi. don de boobu nag moom mooy tey boo paree sa fin du mois nga am leen lu nga cotiser loolu moom mooy tax tey jii nii ñu mun a dem gox-goxaat yi. c'est vrai que en terme de temps mais gars yi waxu ah, Adama am na lu <laughs> làqu si biir de bon du loolu rek. maa ngi ñëw maa ngi maa ngi ñëw maa ngi ñëw. maintenant boo ñu demee nag. en hmm. deux mille dix huit deux mille dix neuf ñu doon def des campagnes de sensibilisation dans des instituts de formation et des lieux publics. Hmm. def yenn région defoon nañ lu tolloog ay sept wala huit régions. boo ñu si paree loolu si la am ay kuréel yu ñu gis gis ni ah, ñii ñoo ñu def. liggéey fondation Frédéric Ebert mun naa ko mun naa ko citer. Mhm. ñoo ñuy remercier de passage sax euh, euh, monsieur Diack. Hmm. wax ak non non fondation Frédéric Ebert bokkul ak hmm. union européenne. Hmm. c' diamétralement opposé. non dama si yokk ba xam union européenne. non non non non non ñoom musuñu. musuñu leen kii musuñu leen laaj financement. jéemuñu ko sax. voilà. beneen bi jéem leen financer waa comme ça ngeen sensibiliser jeunes yi. ñu toog au que ñuy dem comme que Europe moom buggatuñ gis. <laughs> vraiment xam nga Union européenne de 2005 ba 2019 joxe nañ fi financement bu bëri. Mm-hmm. da danañ ci ñëw ci kanam. waaw mais daal ñun moom. laale wu ñu si lekkagu leen si. jéemuñu ko sax. lekkagu leen si pour l' <laughs> xam nga mooy lu ma doon wax. Mm-hmm. tey bu nekkee problème mu ndaw nga nekk ndaw di vivre même difficulté yooyu noonu. adaa fu mu toll nii surtout surtout troisième bureau dafay mel ni kon genre man waxatuma ko sax organisme. dama koy wax genre plateforme la. parce qu'il y a des de retour yu si nekkaale. y a des potentiels yu si nekkaale. y a euh, ñu nga xamante ne dañuy jiite ay organisme am na ay juristes. am na ñeneen cest à benn kii bu nga xamante kuréel bu nga xamante ni bépp couche société même boo liiree suñu dernier euh, cri de cœur bu ñu mujjee def ku nekk gis na si wàllam. Mm-hmm. parce que ñoo ñëpp ñoo dajaloo nekk biir Ada. donc foofu noonu moo tax am nañu légitimité pour mën a ñëw xeex ak euh, wala pour wax si lu nga xamante ne moom la ndaw yi di dund mais encore une fois bon si lu ñu déparé te mm-hmm. c'était trop difficile ah ñu bëri dañu doon wax mais yéen lu tax ngeen ñu jël seen xaalis di mën a def mm-hmm. dem nañ fenn foo xamante ne sax on a vu yeneen kuréel kenn ku ñu interpellé nañ ñoom bu ñu amul financement bu ñu def dara man leen mais attends bu fekkee ni yéen yenn organisme yu mag yi fonds yu ñuy coopté deux tiers yi pour ne pas diir euh, wala wala wala trois cinquième yi mhm. seen fonctionnement lay demee muy seen salaire yu mag yu ñuy am seen locaux yeeg loolu mais terrain lu ñuy def si terrain du bëri kon ndaw yooyu noonu ngay gis nii yëpp boo sensibiliser fii rek lay dugg génn fii parce que dañu naan ñii dañuy dañuy sono rek mhm. am na sax yenn kuréel yoo xamante ni peut-être ils le font indirectement yu mag yi nga xamante ni dañuy ñëw pousser les jeunes à migrer mhm. parce que ñoom du ñu ñëw attaqué wu si source bi si racine bi lan la ñuy attaqué moom mooy les pot migrants yi nga xamante ne dem nañ ba ñëw. Mm-hmm. donc jeunes yi lan la ñuy jàpp seen xel. bu fekkee toog nañ fii amuñu financement amuñu dara amuñu ku ñu accompagner. Mm-hmm. dégg nañ ndaw yi nga xam dem nañ ba ñëw ñu kii leen financé leen kon ñun nañu jéem a dem. Mm-hmm. bu ñu demee egg alhamdulilah bu nekkee dañ ñu andiwaat. ñu dem si organisme bii nii mu ñëw jox ñu xaalis te organisme bu mag la. d'accord. léegi euh, Barça wala Barsaq ngeen ne yéen mhm. euh, xamoon ngeen ni phénomène bi dana dellu si waat fan yi moom ni mu mel ëpp na dafa taqar naa c'est ça moom c'est c'est c'est nekk na loo xam sax dafa doy waar euh, déjà yow de ban jàng causes yi causes yi lan moo ko waral. waaw surtout en période de Covid 19 à part à part cause classique yi. Mhm. nga xamante ni si phase yu ma doon yu ma. tënkoon nànk rek mm. eh, yëpp am na si muy période sécheresse bi période eh, deux mille bi Barça ou Barça même période éclatement wu Libye bi ba mu am trafic illicite des migrants donc si période yooyu noonu yëpp cause yi xam nañ ni que c'est politique économique sociale wala culturelle mm. maintenant loolu noonu lan moo si anduwaat moom moo si amaat cest à wax nga ko léegi nii nekk nañ si période Covid bu nga mm. xamante ni daal tax na suñu côté économie eh, metti na loolu si ndaw yu bëri xam nga chaque fois dañu wax ni que y' a plus de trois cent mille jeunes yu nga xam dañuy frappé à la porte de l' emploi. Mm. ñu ngi siy jël matul sax trente mille. donc jeunes yu bëri dañuy pare seen jàng duñu mën a am xëy. Mm-hmm. wala ñu dugg ci centre formation yi bu ñu paree seen jàng duñu am xëy. alors que bu bëri la seen way juri investir. tout à fait mm-hmm. ñenn ñu ci bëri dañuy dégg ay financement ak yooyu noonu ñenn ñi dañuy dem di liggéey ci ay centre d'appel wala ci ay banque ak yooyu noonu. Mm. lu ñuy gagné c'est tellement précaire mooy loolu. ñooñu boo leen waxee pour tey pour dem dañuy jéem dem. beneen moom mooy lan dañoo nekk ci benn période bu favorable. Mm-hmm. ku xam géej dëgg xam na ñi weer bii ñu wees ak bii ñu nekk ni ak bii di ñëwaat période bu favorable la. Mm-hmm. bu nga xamante ni gaal yi mun nañ dem facilement ci île yooyu noonu. ah mm-hmm. ñu am difficulté. d'accord loolu muy période bu favorable boobu noonu. beneen bi wax naa ko moom mooy cause économique bi. mais euh, fu may gën a appesantir moom mooy tey jii ni ñu nga xamante ni mooy marchand ambulant yi. tey marchand amoon nañ benn assistance wala ñoom ñëpp boo ñu doon accompagner yenn euh, kuréel yi ñoom accompagner nañ leen ñoom ñëpp est-ce que laal na surtout déguerpissement yi ñu doon amal effectivement surtout période Covid effectivement ñu bëri seen business ñu yàq ko tout à fait mhm. donc ñooy noonu tey fu ñu doon amee xaalis amatuñ ko boo demee tamit si pêcheurs yi ñu nga xamante ni ah gis nañ ni que yenn euh, ak Mauritanie chaque fois ñu wax ko mhm. chaque fois bu ñu demee feneen nga dégg benn benn pêcheur bu nga xamante ne rey nañ ko wala benn pêcheurs yi amuñu accès trop si foofu te suñu géej bi fii nii pour nga am si da ngay gis kenn koo xamante ni ay ndaw yoo xamante demoon nañ approché leen. Mhm. ñoom ñu ne dañuy dajaloo di dajale xaalis ba am trois cent mille. Mhm. dem pendant une semaine wala deux semaines si géej mais bu ñu ñëwaatee. du ñu am sax benn benn jën. Mhm. keesu jën bu fees sax amuñu ko. amuñu ko ñooñu bu ñu dajalee am 300000 boobu noonu mais tey jii ne bu ñu ñëwaatee après lan la ñuy def. nan la ñuy def ba dajale xaalis boobu noonu dañoo leb. Mm-hmm, dañu leb wala parfois sax duñu am fu ñu leb. effectivement mm-hmm. bon loolu di laal ñooñu. ñeneen ñi tamit moom mooy côté euh, cultivateur yeeg yooyu noonu gis nañ ni tamit ñu bëri seen terre. Eh, nuñ nuñ leen nuñ koy nangoo. Mm-hmm. ñu nga xamante ni ay ndaw lañ. nekkoon di élever ay poussin ak yooyu noonu. gis nañ benn kii kuréel bu mag bu fi nekk. pas kuréel mais benn entreprise xaw ma ndax kuréel lañ ko wax ci olof ou pas bu mag bu fi nekk boo xamante ne moom fu mu doon yam moom mooy juste poussin yi euh, jaay la jaay la ay aliments jaay la ay euh, ay ay poussin et cetera mais léegi mhm. dañoo dem ba chaîne bi yëpp la ñu la ñu commencé di développer mhm. maanaam yow mi nga demoon yar ginaar dañoo dem ba ñëw yow lu nga doon yar di ko jaay ay deux mille cinq cent jëm kaw ñoom ñu baissé les prix di ko jaay ay mille cinq cent mhm. donc sa dootoo mën a jarat mais dootoo mën a jarati mhm. ñoo ñëpp dañoo am fayit ñoo ñëpp nu ñu mujj def mooy dajale seen xaalis dem mhm. am na ño ñu nga xamante ne am nañ xëy mais xëy bi ñu am c'est pas décent am nañ ñu nga xam ay commerçant lañ tamit ñu nga xamante ne am nañ seen boutique et tout mais ñooñu dafay ñëwaat tuuti si côté classique bi. Mhm. peut-être que dañuy bàyyi seen rakk foofu noonu jéem a dem. Mhm. ndax mirage bu ñu am. Mhm. jàpp ni Europe. actuellement waaw seetal ma fi ma beneen bu gën a mujjee moom mooy foofu laay terminer moom mooy euh, tey jii ni xam nañu itali yàggul demoon nañ maye papier Espagne tamit ñooñu si politique boobu noonu. donc ndaw yi ils sont très bien informés tey bu ñu xamee ne que ñooñu maye papier te yii yëpp moo ñu fi mais nu ñu def mooy dem loolu moo tax. le mois de. kon Covid le mois de juillet dafa tax comme euh, ku Italie wala ay Espagne ñi nga xamante ne dee na lañ lu bari ci Covid bi ñuy may ay papier. am na ñu naan tamit ku dem Italie par exemple ak li mu deele bon entre parenthèses ci Covid bi. Mhm. war nañu soxla main d'œuvre. daan naa ko dégg même si période Covid bi. bi ñu naan Italie ay 700 morts 600 cinq 500 morts ñu ne fii de bu Covid bi passé ku fa dem di nga am liggéey. bon xëy na da ngay dégg jeune bu koy xëy na xëy na waaw dinañ ko wax. mais xëy na peut-être plus tard. Mm-hmm. mais actuellement ni ñu mm-hmm. nekk Italie. Mm-hmm. te ñu am seen euh, contact. xam nañ ni que actuellement ni magasin yu bëri wala kii boutique yu bëri tëj nañ. tëj nañ yu bëri tëj nañ. donc loolu moo tax ñun bon depuis de mois de juillet génn woon nañ benn communiqué pour alerter. pour fàttali non seulement les financement yu am ak benn financement boo xamante ne fu ñu ko orienté ñun d'accord ñu si loolu. peut-être. tey jii nit munoo doxee si benn tànk il faut nga doxee ñaari tànk n'est-ce pas. Mm. le mois de mars dafa amoon lu tollook euh, onze milliards d'euros yi nga xamante ne ñooñu ko jox euh, suñu euh, benn projet de partenariat la. Mm-hmm. nga xamante ne moom mooy lié entre l'Union européenne ak nguur bi ñoo jox ko suñu police ak suñu gendarme pour ñu gën a surveiller côte yi. Mm-hmm. donc boo joxee xaalis boobu noonu alors que. luy développement lu nga xamante ne moom mooy yeneen solution yi. Hmm. bu causer réellement ces jeunes là pour ñu dem mais dañuy dem loo tax le mois de juillet ñu sorti suñu communiqué si loolu lu mois d'août tamit ñu génne beneen communiqué pour alerter mais malheureusement bon. Hmm. mais sànq da nga ne Espagne dafay may kayit actuellement moo tax comme que les jeunes sont bien informés ñuy rey seen bopp pour dem. waaw. Euh, maye kayit ci yan yan base. ak yan norme d'abord d'abord d'abord Italie. Hmm. weer yi ñu weesu demoon nañ maye kayit. Espagne ñooñ si nara a dem. Mhm. ñooñ si nar a dem commencé gul mais ñooñ si nar a dem donc yooyu noonu si base yi nag bon ñu si bëri euh, bu ñu déggee ni rek ni dañuy may kii dañuy jéem a dem. d'accord mais dem bi naka lay demee parce que à mhm. un début bi doon nañ gis bloqué nañ fii bateau migrant euh, nanguwuñ jël ainsi de suite parfois ñu dem Union européenne waxtaan waxtaan tas migrant yi kii na jël temps kii jël temps kii jël temps. mais à dafa mel ni affaire boobu dafa dafa bloqué euh, réew yi nga xamante doon nañ jël mënatuñ jël mën nga ñu expliquer exactement processus bi comment ça se ki nga xam ne amul kayit amul dara jékki-jékki rek jubali Europe débarqué Espagne débarqué Europe comment ça se passe. Euh, en amont wala wala wala bu ñu demee ba yegg. bu ñu demee ba yegg. Mhm. voilà bu ñu demee bu fekkee dem nañ ba yegg waxuñ ñuy faatu ci géej gi ainsi de mais ñi nga xam dem nañ. ba yegg voilà. waaw xam nga euh, boo eggee si idées yi noonu. Mhm. lu ñu njëkk a def moom mooy euh, da nga fay fekk ay organisme mhm. moo tax yenn organisme bu ñu avancé. Mhm. yenn chiffres peut-être ils connaissent. comme Croix-Rouge njëkkoon nañu woon sax defoon benn sortie waxoon plus de mille. migrants sénégalais ñoom eggoon nañ fa. ba suñu état ñëw démentir loolu noonu. léegi bu ñu ñëwee boo eggee lu ñuy def moom mooy ñëw recueillir. les informations selon quoi euh, ban nationalité nga jël sa empreinte et tout def la si benn fichier. maintenant si fichier boobu noonu kon nu ma doon wax sànq moo tax mu important moom mooy si global compact yi ñaari mm-hmm. muy global compact réfugié nga xamante état yu bëri ñoom ñoo ko signé ratifié ko contrairement global compact bu migrant bi nga xamante ñooñu ko defoon Marrakech. Mm-hmm. ay syndicalistes sax ñoom ñoo ñu représenté woon Sénégal mm-hmm. malheureusement te foofu noonu euh, ñu ko signé si Europe bëriwuñ maintenant boo fa eggee lépp luy àq ak yelleef doomu aadama loolu moo tax. kuréel yooyu nekk mhm. bu ñu la recueillir ba pare nañu xool sa santé ak yooyu noonu dañ lay dugal si camp yi mhm. camp yi camp de de réfugiés effectivement camp la nga xam camp yu nga xamante ni mhm. dina accueillir à la fois bon je veux pas <laughs> utiliser le mot de de migrant de mais nañ ñëw jël ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo jugee seen dëkk ñëw foofu noonu c'est-à-dire les immigrés bu ñu leen fa recueillir ba pare jéem a xool nu ñuy classifier xool ndax kii nii c'est un réfugié wala kii c'est un migrant économique mm-hmm. maintenant bu nekkee migrant économique la ah bu nekkee xamuñu sa dëkk te xamuñu ni bu nekkee xam nañ sa dëkk nag te xam nañ ils ont signé des des projets de partenariat ak dëkk yooyu noonu. dañ la fay delloo waaw mun nañ dañ lay refoulé moo tax ñu bëri seen papier bu ñuy dem. avant ñuy egg sax dañ koy xotti xotti amuñ pas parce am ñoom da ngay nekk euh, sénégalais nga ne burkinabé la wala ñu ne la sénégalais nga ne syrien la parce que syrie am na guerre ainsi de suite ñu si bëri donc kon ñoom seen kii bi ça pose problème effectivement ñu si bëri mm-hmm. ils vont dire bon ñu si muus yeewu ñu si bëri lu ñuy wax moom mooy dëkk bu nga xamante ne guerre moo fa am wala conflit moo fa am c'est vrai que si dëkk yu nga xamante ne amul guerre si tu un réfugié wala un demandeur d'asile mun nga am papier wu réfugié mm. te loolu moom mooy dañ la persécuter selon sa sa sa appartenance ba nga daw uti foo la waaw mais daw uti dafa am ay raisons parce que dafa am charte bu nga xam moom mooy définir loolu muy euh, kii wu Genève bu 1975 maintenant bu nekkee yow da nga am appartenance bu nga xamante ni ah moom mooy sa orientation sexuelle foofu bu nekkee Sénégal nga jógee mun nañ ne ah mm. kii ni mun nañ ko jël muy orientation sexuelle. kii dafa ne góor jigéen ñu koy xatal bundu xatal. waaw waaw si orientation sexuelle. Mm-hmm. maintenant bu nekkee nag da ne conflit. Mm-hmm. Ah, bon bien vrai que sud pays bi amoon na conflit et tout bon là c'est c'est stable loolu la ñuy ñaan mu gën dem sax. ba mm. conflit bañ a amati mais mënatoo wax ni Sénégal. Mm. Euh, jóge nga fi ndaxte dañ la sonal trop ndax euh, wala danga am euh, pays guerre la ak yooyu noonu. munoo ko kon dañ lay jël delloo la tout à fait. léegi looloo tax gars yi suñ demee kii seen itam bu fekkee ne dëkk boobu ak Sénégal signé nañ accord boobu noonu. Mm-hmm. pour ñu ñëw rapatrier. rapatrier tout à fait mais bu nekkee amul loolu nag ñu si bëri bu ñu eggee bu nekkee am nañ la bon information. lu ñu wax moom mooy soit c' est des maliens côté kiiwu Mali bi lañ jógee mm-hmm. wala yeneen dëkk yu nga xamante ne am na conflit am na conflit comme ça foofu boo fa nekkee kon fii nii rek nu mu nekkee euh, commission national bi nu muy def mm-hmm. kuréel yooyu ñoom ñoo ñëw xool la xool sa papier et nga nekk fa benn temps temps boobu nag bu bu nekkee gis nañ déterminé nañ ni ah, kii nii mm-hmm. dëkk bu mu jugee peut être wala li mu wax du loolu wala des trucs dëkk bu mu jugee peut être dëkk bu am guerre la wala soit c'est un sénégalais mais kenn xamul ni c'est un sénégalais def nañ kal xool nañ saytu nañ saytu nañ bu baax mais gisuñu ni que Sénégal la dëkk mais dañ lay ñëw après jox la papier. jox la papier. ils sont obligés ils sont obligés waaw ouais, ils sont obligés de t'accompagner. Mm accompagnement boobu noonu pour comprendre sànq lu ma doon wax ci réfugié yi nekk fii nii. Hmm. bu nekkee tu es un réfugié dafa am benn accompagnement bu nga xam moom lañ lay teg même ce côté insertion c'est-à-dire nañ la accompagner pour nga a insérer wu facilement. bu nekkee da ngay jàng nga continuer sa jàng nga nekk ci centre ñu lay jàngal et tout. bu nekkee liggéey tamit ñu utal la xëy jox la sa argent de poche et cetera. Hmm. donc foofu noonu dañ lay accompagner bien sûr. Hmm. foofu sax moo léegi looloo tax jeunes yi di rey seen bopp naan Barça wala Barsaq. maanaam ci géej gi wala yegg tekki. parce que jàpp nañ ni loolu tekki la waaw est-ce que est-ce que jeunes yëpp xam nañ ni que bu nekkee statut boobu noonu nga am accompagnement boobu ngay am. Hmm. wala du ñëpp ko am. jeunes yëpp ko xam mais ñi si bëri mirage bu nekk seen ko seen biir moom mooy leen nañu dem Europe tekki ndaxte fii nii conditions yi ñu vivre fii nii. jéem nañ fëgg nañ buntu. bu ne marché wul nañ xooli fële lu mhm. jeunes yu bëri loolu la ñuy def ñu bëri. ils ont entendu des financement dégg nañ ay financement dégg nañ ay xaalis dégg mhm. nañ ay milliards et tout mais gisuñu si dara te tey jii nii bu nekkee góor nga nga nekk si benn kër mhm. sa papa ak sa yaay ñëw sacrifié wu teg la dans la dans de bonnes conditions nga ñëw jàng wala même boo jàngul sax am na lenn loo xam te ne def nañ ko si yow chaque jour ngay yeewu cinquante francs sax bu ngay am pour dem jënd café wala pour kii ñoom ñoo la koy jox mais sa ngor du la may nga toog loolu nañ ko nañ ko wax ana moment parfois sa mère bi teggi natt bi nga jël natt bi dem dem ak moom géej waaw bon xam nga jaar ci ci loo xam nga ñu si bëri boo leen enquêté nga ñëw kii leen ñu won condition de vie yu ñu nekkoon hmm. ñu gis à côté seen benn voisin boo xamante ni en deux mille cinq hmm. wala deux mille quatre la dem jët demoon na hmm. wala nga gis keneen koo xamante ni ah récemment la dem parce que euh, sànq si cause yi foofu fàtte naa ko hmm. frontière frontière frontière terre euh, frontière aérien bu nga xamante ni moo ñu amoon yu si bëri dañ ko tëj te avant ñu demoon dem si ambassade yi pour visa boo ñu amul visa nu ñuy def lu mu développé mooy ñu nga xam dañuy jaay visa mais ñooy noonu di jaay visa seen marché doxatul mais ñooñu nu ñu mujjee ñooñu nu ñu mujjee moom mooy mm. jël kii mm. léegi bu nekkee da nga gis benn jeune boo xam soit dafa jë jëndoon visa pour dem wala duggoon si gaal bi dem kooku ñëw à côté construire fi benn kër boo xamante ni macha allah macha allah commencé daw oto yow nga nekk fi jàng dem université dem ba def sa étude doctoral nga pare pour nga am cinquante francs sax munoo ko am mais nañ waxante dëgg noonu ngay mujjee def noonu ngay mujjee def mais am anama am na nee nañ koppar bu Union européenne joxoon euh, mhm. yenn réew yi nga xamante ni accepté nañ seen seen seen doomi réew yi ñibbisi mais xaalis boobu naka la demee parce que actuellement déggaatuñ ci dara waaw union européenne mooy sànq lu ma waxoon. lu ñu joxe moom dafa bëri trop. parce que lu ñu joxoon yenn réew yi accepté te Sénégal ci la bokkoon seen doomi réew ñibbi si mais ñu accompagner leen ñu toog fi. waaw moom moom laa wax. c'est-à-dire union européenne. Mm. lu mu joxe moom dafa bëri trop. Mm-hmm. muy accompagnement des migrants de retour am na. Mm-hmm. lu weesu migrants de retour ñoom tamit xam nañ problème moom mooy source moom mooy attaqué wu si potentiel migrant. Mm-hmm. loolu moo tax sànq ba ma waaw ba ma doon wax si affaire ndax Sénégal de l'extérieur ou pas man ñun kuréel bi suñu kuréel lu ñu wax moom mm-hmm. mooy mm-hmm. Mm-hmm. booy ñëw di attaqué wu benn problème doo ñëw xool wala benn garab même si euh, les écologistes bu ñu déggee ma joxe exemple boobu dinañ xaw a mer boo jëlee benn garab nga bugg ko dindi mais doo ñëw ba si feuilles yi naan da ngay dagg feuille racine bi nga ñëw attaqué wu les potentiels migrants tant que xamuñu la mooy seen problème ñëw jéem ko saafara ñëw bëgg ñëw ne no ñu jógee feneen di ñibbi si rek la ñuy la ñuy andi ay saafara mais loolu amul sens. ça ça pose ñoom ñu ngi sóoraale jeunes yi fi nekk di takk seeni bagages di dem. fonds fonds fiduciaire. mais est-ce que fi ñu ko war a def. def na ko c'est ça la question les fonds fiduciaires. waaw yu nga xamante ni euh, am na. ça mille de 2017 benn période bu quatre ans la Union européenne boo ñu doon joxe fonds yooyu noonu xam nga lan la ñu wax c'était si je me trompe pas vingt six milliards lu ñu doon wax moom mooy fonds bu ñu koy joxe dañuy ñëw. pour les potentiels migrants moom mooy les jeunes qui sont là parce que ay enquêtes yu IFAN ak benn cabinet bu américain defoon dañoo wax ni que soixante quinze pour cent des jeunes qui ont été enquêtés veulent quitter le pays dès qu'ils en ont les moyens loolu lu muy tekk moom mooy sur trois jeunes quatre yi dañu bëgg a génn dëkk bi te mm-hmm. loolu yàggul 2017 bii rek la mm-hmm. rapport yooyu noonu nag bañ ko kiiwee ba pare Union européenne gis ko dañoo ne ah léegi ces potentiels migrants là dañoo ne dafa am problème d'éducation bu am mm-hmm. cap euh, seen capacité n'est pas dafa des ak yooyu noonu c'est-à-dire dañu naan ndaw yi lu ñu jàng ak lu nga xam moom la ñuy soxla dafa dafa ute. Hmm. kon pour ñu ñëw insérer wu facilement dafay metti ñu joxe fonds yooyu noonu mais fonds yi fu ñu ko orienté moo nekkul. fan lañ ko orienté. bon on avait génne woon nañ 2018 benn rapport pour laaj nguur bi. pour na leen fonds dugal. bon ah si lu ñu gis si lu ñu gis. tontu wuñu directement parce que toog nañ ay sept huit mois plus tard ñu gis ñu bind je sais pas ndax c'est en rapport ou pas mais lu ñu wax moom mooy côté sud bi ils ont financé des femmes et cetera renforcer leen capacité jox leen mais tey jii nii nga am benn population bu jeune moyenne bi nekk dix huit ans. Mm-hmm. population bu gën a active soixante douze pour cent ce sont les mm-hmm. nga jël benn centaine de. groupement wala de femmes jox leen alors qu'on a dit benn ay jeunes muy jigéen ak góor. bu am quinze ba trente cinq ans nga war a financer. Hmm. d' abord nga ñëw renforcé c'est-à-dire defar seen éducation. Hmm. peut-être nga orienté ko si yenn métiers yi. kon boo joxee exemple euh, Allemagne wala Rwanda bi ñu jege Allemagne boo demee ma jox la juste exemple boobu noonu bu nekkee ndaw nga ngay jàng. boo demee si benn classe bu nga xamante ni exemple mooy nekk euh, troisième secondaire dañ lay orienté nga def ay métier wu mécanisme wala soit ay menuisier et cetera loolu ngay jàng kon fii nii fac nu mu nekkee ñuy def médecine. Mm-hmm. da ngay da nga koy def théorie ak pratique. exactement jour bi da ngay dem si entreprise yooyu noonu. Mm-hmm. di liggéey. Mm-hmm. soir bi nga dem jàngi. booy def examen pratique lay doon. ak théorie lay doon ce qui veut dire que si trois ans bi première année bi kon genre euh, stage lay doon. si entreprise boobu ngay def bien vrai que jàng lay doon. deuxième année Euh, yaa ñu dem ba société boobu noonu signal la benn CDD. Mm. deuxième ak sa troisième année mm. maanaam boo demee ba. terminal nga waaw ba terminal. Mm. boo amee sa bac ba pare yow soit inséré wu nga si société boobu noonu wala soit créé nga. sa entreprise sa entreprise boobu. loolu moo tax boo demee si dëkk yooyu noonu. pour nga gis fa kenn ko am ay bac plus cinq ak yooyu. du bëri dañ daf leen jaaxal sax. Mm-hmm. te ñu si bëri loolu rek. trouvé na benn solution par rapport ak migration alors que fii nii mhm. on a des centres de formation professionnelle yu fi nekk mais dañuy former sànni non non non mais formation bu ñu leen war a jox sax <laughs> hmm, mooy bu ñu leen war a jox <laughs> mais buñ demal centre de formation professionnelle waxuma institut de formation mais hmm. centre de formation professionnelle yu ñëw former ces ces ingénieurs bu bâtiment ay ay ay menuisier et cetera non seulement développé wuñu ko mais lu si gën a weesu moom mooy euh, moyen yi leen war a jox fartaaluwuñ ko sax alors que loolu moo waroon nekk solution solution bi léegi juste une minute temps bi sax jeex na tàkk euh, léegi euh, nee nga dinañ am ñu ñu jël dina am ñu ñu accueillir mais foog ñu noter que ñu bari ñu ngi faatu ci géej gi na ne ngeen risquer seen vie du ñu mm-hmm. sonn tamit ci sensibilisation bi mais est-ce que à un Europe dina mën a tee jël maanaam jël bi ñuy jël ñenn ñu ñu defal leen papier téye leen ñenn ñu ñu rapatrier mais est-ce que jël boobu amul fu mu yam. waaw loolu moo tax euh, boo dee xool. Mhm. politiku wu waa waa Europe dafa changé en 2017 euh, ñoom si lañ ñëw si yenn dëkk yi. parce que mhm. il faut comprendre la migration si si terme yi. c'est vrai que temps moo ñu ko mayee moo tax. Mhm. xuusuñu si trop. migration da ngay xool pays de départ pays de transit. ak pays de destination. ñoom léegi comme que pays de destination si ñoom la. muy migration clandestine même si en réalité la migration wala les questions de mobilité mm -hmm. c'est intra-africaine mm si Afrique bii nii la mhm. quatre cinq pour cent de la migration fii suñu dëkk la quinze rek moom mooy nekk vers le nord malheureusement loolu lañ gën a médiatiser maintenant ñoom dañoo wàcce seen euh, seen doole yëpp pour mun a ñëw contrer les migrants. Hmm. ñu bañati dugg. effectivement moo tax Libye boo mu éclaté avec Chidou Khadafi et tout ñu ñëw signé ñoom benn accord boo xamante ni na garde côte libyen yi def lu la neex mais na bañ lu ñuy bañ moom mooy. benn hmm. benn migrant traverse. que ça soit te ñoom bu ñu la jëlee lu gën a grave mooy dañu lay dugal si camp yu nga xamante ni peut-être c'est c'est géré par l'État yeneen yi c'est pas c'est géré par des milices. Hmm. moo tax ñuy wax. facette hideuse de la migration. Mm-hmm. mooy ñu nga xamante ne dañuy ñëw jël seen rein ñii ñu jël seen seen yenn mm-hmm. organ di ko jaay. Mm-hmm. trafic d'organe bi si biir muy trafic illicite des migrants. beneen moom mooy euh, Agadez boo demee si Niger. Niger tamit ñu teg fa signé fa en 2017 benn accord bu nga xamante ne moom mooy tax tey les passeurs yi fa am yu fa nekkoon xamoon yoon bi trop ñoo ñu teg leen ay daan yu yu bëri. moo tax yeneen filière moom moo fa développé wu. da nga gis keneen koo xam c'est un burki bi xamul dara si yoon bi ñoom ñoo ñëw ba si àll bi wala si désert bi autant pour moi bàyyi la foofu te foofu y a énormément de morts ñu fay dee mm-hmm. moom moo raw fuuf moo raw fuuf ñu ñu dee si gaal bi mais mais malheureusement cette migration la mm-hmm. foofu la terminer mm-hmm. ça arrange beaucoup de gens mais foog nag euh, Adama ngeen di gën a sensibiliser actuellement euh, jeunes yi foog ngeen gën a yokk seen campagne de sensibilisation wàcc dem ci yenn quartier cible yi waxtaan ak jeunes yi euh, juste beneen question mhm. euh, jeex na sax euh, cent quarante sept morts yi amoon ci explosion pirogue bi yéen a ngi wax nañu ci ubbi ab enquête Union européenne wala sax organisation internationale des migrants OIM moom moo ko wax lan nga ci wax juste suñu tàggatoo quelques secondes waaw loolu loolu luñ si wax moom mooy bon xam nga Union européenne dafa nekk benn or euh, bon OIM autant pour moi organisme la. Mhm. ute naag état bi. Mhm. nga xamante ne état bi am na ay euh, pression yi nga xam mooy posé si moom. Mhm. muy que ça soit national comme international. loolu nag moom mooy tax ñoom ils peuvent wàññi mun nañ wàññi chiffres yi. alors que union euh, OIM mun nañ yokk chiffre. Mm. loolu moo tax parce que yi ñu joxe woon ak. OIM bi ñu joxe diamétralement opposé. effectivement léegi nag pour <laughs> tey tey mm. tey lu nga xamante ne moom moo am. Mm-hmm. moom mooy benn bakkan sax bu robee. Mm-hmm. il faut ñu leeral. Mm-hmm. waxuma la ak ñuy wax lu tolloog cent quarante wala plus. donc loolu moo tax ñun bon en tant qu'organisation des des droits de l'homme ñu ne ah nañu tijji benn information judiciaire. ñu andi loo xamante daf ñuy leeral mu hmm. nekk ay enquêtes yu nga xamante ne yu indépendante la hmm. nga xamante ne ah dinañ xam ñaata ñoo duggoon si gaal boobu avant ak ñaata ñoom ñoo si génn loolu nag ñu teg ay sanction bu nekkee jar na am ay sanction maintenant mënoo ñëw recevoir des fonds encore une fois ba pare euh, ndaw yi di di si dee te doo si doo si andi ay leeral voilà te foofu laay terminer hmm. euh, migration il faut comprendre une chose yaa dafa am ñu nga xamante daf leen arranger parce que c'est de fonds tant que ñu ndaw yi. Mm-hmm. solution yi moom euh, mënul nekk rek que gouvernemental mm-hmm. bu gën a am solo. ça doit être euh, collectif ku nekk am na euh, bu gën a am solo c'est gouvernemental. c'est-à-dire bu ma koy wax ñu élaborer benn politique de jeunes par des jeunes et pour des jeunes c'est-à-dire ndaw yi ñoom ñoo war a saytu xam nga tey jii nii nga ñëw gis ñoo xamante ne duñu mm-hmm. duñu migration ñu ñëw xalaatal ñu nekk ay personnes age xalaatal ñu politique migratoire alors que la migration dafay changer tout le temps bu may wax quatre phases parce que am na changement tout le temps. Mhm. léegi réalité yu nga xamante ne ñoom lañuy xalaat pour jox ñu ko ñun mais dafay ute. voilà ñu di la remercier <laughs> encore une fois di la féliciter si émission bu am solo bu ngay def ñooñu koy suivre di remercier euh, ñëpp ñu nga xamante ne ñoo ñu doon déglu surtout waa ADA tamit ak euh, ñu nga xamante ne ñoo ñuy accompagner di ñu gunge. di remercier tamit sama famille voilà ñu ngi koy remercier bu baax a baax Adama nga nekk njiitu euh, action pour les droits humains et l'amitié ñu koy remercier bu baax a baax di leen remercier yéen suñu auditeurs euh, yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci technique bi émission bi mën ngeen ko suivre ci suñu portail internet rewmi point com wala ci suñu chaîne YouTube mi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah.